pousse quoi wax naa la suñu état d'esprit ci ñun ci liggéey lañ la. ban liggéey ban liggéey yow par exemple yaa ngi parcelle. ban liggéey ci ban liggéey nga nekk. man hmm. si sama liggéey. ma yor sama mais parti bi bon loolu la bëgg a wax si politique bi. ci politique ñoo ngi mais mais ñoo ngi liggéey. wala bi. non troisième mandat man du ma toog fii di wax troisième mandat. c'est la constitution. alors deuxième quinquennat quoi. voilà ñun foofu lañ toll. léegi nag constitution bi. su demee ba valider ñu. ñu battre franchement ñi nga pour man ñi nga xamante ne amuñu argument juridique. ñooy wax ay deuxième quinquennat mais franchement. constitution bi nul ne. su yow yaay constitution nag. bay bay bay bay bay naan ay argument juridique. gis nga gars nga xamante ne dañu ragal. waaw ñi nga xamante ne dañoo bëgg bëgg dañoo bëgg dañoo euh, xam ne président Macky Sall amul droit def euh, trois mandats. ñu ragal moom mooy ñu nga xamante ne si moom la ñu féete mais ñi ñu wax la ñuy wax dañuy bàyyi conseil constitutionnel. mu joxe décision bi ñoom lu ñu wax rek comme que ñoom ñoom lañ fi teg lu ñu wax rek loolu la mais mm-hmm. affaire bi du loolu. affaire bi du nekkul loolu. Mm-hmm. président Macky Sall moom moo def référendum fii. ah oui ou non. voilà référendum fii ni moom deux mandats lay def bind ko wax ko ñëpp xam ko comme xam nga mm-hmm. mais moom dafa war a tënk si loolu yéen ñi bu leen taxaw fii naan yow jeune nga mais looy taxawee fii et puis démocratie Sénégal pour mu baax looy taxawee fii naan ay deuxième quinquennat wax politiciens loolu pour man waxu politicien la non mais sincèrement. xam nga troisième mandat les juristes les constitutionnalistes ñoom ñoo saytu loolu pour mun koo déterminer xam nga suñ toogee fii di koy wax man Macky Sall présenté wu moo ma gënal. moo la gënal moo ma gënal moo defar say business quoi. parce que non non defarul sama benn business. man sama business. sama bopp maa ko defar sama bopp. non mais mu ngi lay jàppale tamit ci business bi. Euh, Pape Malick su dee nag gis nga. fenn am nañ ay link non ministre de la pêche bon xam nañ ni. su na la parole donnée moom mi taxaw fépp wax ne j'en suis à mon deuxième et dernier mandat su ma paree damay jox keneen mu mu wéyal man ma dem nekk ci leneen. et il l'a dit du ci benn plateau du ci ñaari plateau c'est le par la parole d'un président de la République le, le chef de la nation on en fait quoi on en fait quoi ce qu'on en va faire on n'a attendre moom xam nga waxagul waxagul de ñun ñii ñoo nekk di naan nañ xaar constitution Macky Sall waxagul